projet boo mënti gis euh, personnalité nit ki koy porter dafa am importance euh, moo tax bi ma bokkee ci coalition bi ñu nekk ci j'appelle ça une phase de résistance mooy bi ñuy euh, Macky Sall di bundu xatal ñu bëgg suñu élection mu ñu mu marché ñu def dara moment boobu ma dem seeti ko prison waxtaan ak moom lu undoon seeti bi mooy dama buggoon a xam l'homme musuma ko woon gis parce que bu ma doon ñëw fi fekk na mu ngi woon prison ma ni ko mais dama ñëw seet la parce que man balaa may défendre kenn dama ko bëgg a xam voilà parce que mënu ma nekk ci télé yi ci mbedd mi di wax ci koo xam ne xaw ma ko voilà je vais pas mentir du ma la inventel benn mythe te du loolu du dëgg bi ma demee nag ba gis ko ba ñu waxtaan ci la cerne personnalité et effectivement c'est quelqu'un qui écoute voilà il fait pas preuve d'autisme politique day déglu ma ba pare ma déglu ko ma am ci ban personne la voilà te premier discours bi aussi wane na ko voilà parce que man lu ma percevoir woon ci moom mooy tamit nitu jàmm quelqu'un qui qui rassemble parce que dañu jugee ci benn phase ñoo ngi koy wax ci euh, ci science politique stasis c'est-à-dire que c'est une phase de trouble hein, dans les démocraties grecques day am sia grecque euh, mu am ay trouble à l'intérieur des démocraties loolu moo fi amoon euh, su amee nag léegi dañu war a à la nit yi nekkaat ci jàmm ah ñu passer d'une démocratie euh, d'agonisme d'agonisme ou agonistique c'est-à-dire d'affrontement ah, à une démocratie d'antagonisme c'est-à-dire de, de délibération de discussion d'échange etc voilà divergence d'idées voilà je pense que moom message am déjà loolu lay njëkk a wane jëm nañ fa euh, beneen bi mooy il il a vraiment pris la mesure Euh, des problèmes institutionnels des problèmes économiques yi am ci dëkk bi fii ba tax na euh, mu mu accès discours am ci loolu institution yi c'est quoi la justice la justice avait un problème on avait un problème avec la justice voilà parce que euh, il avait des décisions de justice yoo xam ne kenn appliqué wu ko euh, système électoral bi aussi wax na ci il y a un problème il faut régler ce problème là et aussi la prospérité il en a parlé on ne peut pas se satisfaire de la démocratie à se mettre sous la dent démocratie baax na day indi stabilité mais en même temps aussi il faut aller au-delà il faut aller vers une démocratie économique c'est-à-dire l'accès euh, aux ressources hein, euh, la lutte contre la pauvreté hein, parce que même je dirais on est même parfois dans une situation d'indigence de pauvreté extrême et il faut qu'à un moment donné euh, que le gouvernement euh, son régime travaillent pour diminuer la la pauvreté et foofu lay daanelee boo seetloo euh, les les les vingt dernières années yi tous les prix Nobel de la de d'économie ah ont travaillé sur ces sujets sur ces questions sociales moo xam Amartya Sen moo xam Mohamed Yunus moo xam Banerjee et Duflo ah ñoom ñëpp ku ci nekk liggéey nga ci loolu te ci nga am euh, prix Nobel parce que ça veut dire que c'est à parce que pauvreté dafa bëri surtout cette zone là ñoom bi ñu nekk euh, en Inde et que Afrique aussi am na fi il faut maintenant démocratie euh, euh, boo ko mënee boo ko bëggee stabiliser il faut nga lutter contre la pauvreté moo indi ce mot prospère voilà un Sénégal meilleur et prospère et j'adhère totalement à cette vision là